taxawal li nga xamante ne mooy ak ak doomu adama ci taxaw li nga xamante ne mooy liberté mais bu demee ba moom mu ñëw ñun lu ñu yaakaaroon ni fatte fàttewoon nañ ko mu indi ko fii te bu leen fàtte ni Macky Sall moo doon wax ni journaliste du duñu su ma su ma toogee sama nguur journaliste yi du ñu am problème waaye yow journaliste yi du ñu am problème code de la presse ba léegi mënoo ko valider yow journaliste yi du ñu am problème bi nga ñëwee ba léegi da nga jël yeneen journaliste yi bokk leen sa sa pokotaan nga leen di jox di leen suux di leen guuxal ñuy yor laka su noonu ñuy nekk si dëkk bi di wax leen nee te waxuma ko woon ci francais dama koy wax ci wolof ma jàmbal bu góorgóorlu wax si yëfu Pape Alé Niang bi ak yeneen journaliste d'investigation ñu jàpp day gore di tu seras ingrat ma jàmbal parce que des journalistes dañoo xeex ci nguur Abdoulaye Wade bu ñu lay jàpp Abdou Latif Coulibaly idem mais tey comme li ngeen di seex nguur moo leen koy jox wala yeneen ci nguur moo tax bu ñu jàppee seen yenn morom yi doo leen wax loolu ku gore di rek mooy mel noonu dañuy wax ni nañu libérer tous les otages politiques nañu libérer Omar Ampuy Bodian nañu libérer René Capain Bassène waxoon naa ko ci français René Capain Bassène journaliste d'investigation la woon parce que il gênait parce que nit dañuy xëy di nax Casamance yi di leen wax lii ak lii moo am moom mu dem indi véritable information bu baax bi ñu ne kii nag nañ tëj gémmiñam tëj gémmiñam Sénégal moom boo déggee nañ tëj gémmiñam rek mooy nañ ko jàpp tëj ko rab ci kaso bi ah! bu Macky Sall demee kaso yi dinañ fi des Macky Sall bu muy ñëw daf fi fekk ay kaso buy dem kaso yi dinañ fi des kuy yéene say doomu adama tëj kaso ñu leen di tëj rab wala ngeen nekk si nguur gi parce que tey yéen yéen a aaye yéen wal sa moome suba di ngeen daanu keneen mooy ñëw te bu leen jàppee di leen tëj ñu mel ni ñun ñooy taxawaat naan acharnement la acharnement la kon balaa caag yéen mi nekk si nguur bi ñu nekk si société civile bi ñu nekk ci taskatu xibaar yi nañu jóg nekk benn nit jàpp suñu dëkk bi fu mu nekkoon démocratie Sénégal salfaañe nañ ko démocratie Sénégal léegi doolécratie la tudd léegi dictature la tudd ñan ci ku nekk si ñun ku artuwul di nga mus a atte te loolu tax na ñuy glisser ci quarante cinq milliards yi nga xamante ne nee nañ woo dañ ko jëndee ay ay ay fetal waaw ñun kan moo leen ne ñun bëgguñu sécurité ñun état bi bu jëloon cent milliards mu jaarale ko ci yoon dem jënd ay gànnaay pour ne sécurité sénégalais yi la ñun dañ koy tàccul parce que la sécurité n'a pas de prix mais gis nañ taskati xariba tubaab bi ñu fi wane lan lañ fi wone ni lu ñu ko jëndee matul loolu waa xaalis bi nag quarante cinq milliards yi dafa war a leer quarante cinq milliards yi moo tax ñuy jàpp doomu jàmbur yi di tëj quarante cinq milliards yi moo tax ñuy créer distraction maanaam nguur bi nguur bi toog ni nguuru tapale bii nii soo leen laalee lii rek ñu fëlee leen feneen soo leen laalee lii rek ñu fëlee leen feneen dañuy wax sénégalais loolu dafa doy récréation bi jeex na na ngeen xam ni li nga xamante ne gëm nañ lii dafa war a leer lu ñu indil leneen bëgg ñoon réeral wala bëgg ñoo nërmel wala bëgg dox si suñuy maayin nañu dox wax leeral leen lii ba pare ñu jubluwaat ci leneen kilifa diine surtout fu may daane ne mooy <coughs> dañu ne ku attewul ku ku artuwul di nga attee yen yeneen suñuy yaakaar gannaaw yàlla ñun dañoo am yaakaar bu mag si yen ci yaakaar boobu li ngeen ñu def loo ñu def li ngeen ñu wax loo ñu wax looleen ñu bàyyi loo ñu bàyyi ku dem ba jox la loolu ah am na loo ko amel de ndax ki doon wax jaay doole baaxul kooku tey wéyatul jaay doole ndax jaay doole ngi fii te kenn waxul ñun nag suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi ñun ndaw senegaal yi saa yoo leen waxee ñu bàyyi ñu bàyyi ñu ngi leen di ñaan ngeen wax ak Macky Sall